ñett dëkkee fële ca Dalifort ak li ko ñu ngi wax seenu njàqaare gannaaw bi am daal ay euh, hydrocarbure maanaam euh, pipeline yooyu nga xam ne la ñu ne nag euh, essence ba ca ne dafa génn ba nga xam ne moom mooy bassin ba fa ne ñu ñi nga xam ne daal ñoom ñooy autorités yi te ñu ngay artu société africaine de euh, raffinage ñoom nag dàq ñu sax ba yóbbu mbir mi ci yoon ngir mën a aar seenu alal gàmmu Medina Baye bi nga xam ne nag euh, dinañ ko amal ci octobre deux mille vingt deux euh, gannaaw bi nga xam ne nag fi nekk nii kon ñu ngi koy waajal démb amal na ab comité départemental de développement boo xam ne ñay organiser gàmmu ba ak kay préfet. Euh, teewoon na ca ngir ñu waxtaanee daal euh, la nga xam ne kon moo jëm ci gàmm googu nga xam ne sax nit ñi dañuy bàyyeekoo bërëb yu fasante ko ci àdduna bi ngir euh, ñëw fa nga xam ne moom mooy wàllum ndox mi assainissement bi wàllum wér ak it sécurité ak daal yeneen i poñ. Expresso Sénégal dàq boobu ñu ne woon nag da koy wala boobu dàqoon na juróom fukk ci ay liggéeykat ñu ne nag. fi mu ni kon dellu na ca gannaaw ñooñu nag dootuñ leen dàq li ko waral nag kii di ministre de l'économie numérique euh, mi nga xam ne kon moom moo joxe bi lay xibaar doxoon na ca ay euh, jéego euh, loolu nag mu ngi xewoon gannaaw bi nga xam ni kon kër kër liggéeykaay boobu ñu expresso kon dafa daal naroon dàq ñooñu nga xam ne sax jotoon nañu manifester altine bi ñu génn te ñoom sax dàq boobu dañ ko jàppee woon loo xam ne teguwul ci yoon. xibaaru Afrique euh, dañ koy tàmbaleeg euh, li ñuy woowee nag région de Sahel ñu ne loolu nag euh, ci deux mille vingt et un bi rek enregistré na lu toll ci deux cent seize ci ay événements violents yoo xam ne sax ay groupes terroristes ñoo koy amal ñu ne loolu nag day tax ba day jiitu sax li nga xam ne moom mooy Somalie kon ci bërëb yoo xam ne yooyu lay jiyee dafay xew loolu nag ñu ngi ko fa ci ab jàngat boo xam ne ñu ngi ko. professeur kon 15 euh, août lundi 15 août dañu ko amal di centre d' étude stratégique pour l' Afrique. réewu Mali ñoom nag dañoo jël benn dogal ngir aaye eh, importation ak séddale ak jaay li nga xam ne moom mooy ak jëfandikoo bi ñuy jëfandikoo euh, wala boog loolu ñu naan chicha euh, ñi nga xam ne sax ñoom ñooy ay baar yoo xam ne dañ fay jëfandikoo yooyu ne chicha. dinañ ko tëj te juróom-benn weer sax lañ may ñu tëj euh, seen ay buntu euh, dogal boobu ñu jël nag euh, kon am na ñoo xam ne nag jàpp nañ baax la wala am na ñeneen rawatina ay ndaw ñu gis ne daal ànduñ ci boobule dogal. xibaaru bitim réew dañ koy tàmbaleeg Ukraine mi nga xam ne bu sub tey bii la ñuy màggal seen fanweer benn. ba ñu amee indépendance seen diggante US US URSS wante euh, mu am si jamono yoo xam ne euh, bésu tey bii mooy sixième mois gannaaw bi nga xamee ne kon euh, lii di russe leen ki nga xam ne nag mooy njiital réew Amérique di si jamono jooju itam nee na dina waat ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Kiev ci benn ndimbal boo xam ne ndimbalu militaire lay doon boo ne dinañ ko xaymaa ci ay koppar dina trois milliards de dollars. dañ koy jeexal ak fële ca Thaïlande foofu nag euh, conseil euh, li nga xam ne mooy cour constitutionnel ba dañoo suspendre ka fa nekk premier ministre muy Prayut Chan-o-cha li ko moom mooy opposition ba ñoo déposé ab recours boo xam ne daal dañ moom le di premier ministre ba lii di euh, nguuram jeex na ndax huit ans yi nga xam ne kon moom la war a def ci nguur ga def na ko fa lii la ñoo dee jeex waaye seen dawlu di tëdd ëllëg